duma saaga Matar Gueye ma ngi jégalu ñuko ko dégg mais réccuwuma ko ci moom saagal bët bu set ma message ko saga man waaye nag dootuma ko def ci penc mais bët bu set tey laa ko mujjee saaga bi ma jullee timis ba pare ndax wuutee dégg-dégg ak taawile alquran yu wuutee moo tax tey jullit yépp benn yàlla lañu am benn alquran lañu am benn yonantu lañu am waaye bokkuñ dégg-dégg ci biir lislaam man lii moo doon suma yéene waaye li làmmiñ bi wax dëgguwul ci xol bi waye lum ñak ñak dëggu tuubal na yalla tuubal mbolem jullit ndax yalla kat amul ambassade bu mu teg ne xexal ma amul dom du mbokki ken waye def di bur bu sel bu ñepp bok alquran di téré bo xamne yalla wax na ne mako wacce mako sam mako wut waye nak bo ci yemok nit ñi nga joom ci fay bax nag nga sukku sa omi jéggalu képp ko bëgg alquran ndax du waxi ken waxi yalla la man nak ci suma dayo comme matuma dama joom li ma mën mooy jéggalu suma borom ak jullit yi ma bokkal borom bu sell boobu ak alquran bu màgg boobu Fatou Ndiaga wala dama war a mun a passé bi ok mais ma ma gis benn vidéo boo wax ni dafa am histoire dafa am ñu siy profité am na ñu mu naqari koy waxate xam nga wax ji boko gisee dama attaquer maktar sar ak Modou Fall bala may ñew parce que Sénégal wa mom lay wax gis nga diine l'islam den ko wul ñu ci wax wax bo xamne dañuy xeb julit yi jouekati film bu xew genn adina lan mo ci yoni nit ñi bañ japp naan julit nangam julit nangam wax jo xamne tay mën na indi jamm ji julit chrétien am benn ma doon defar loolu defar lu baax loolu moo ma tax a jub parce que tey man mënumaa nangu nga am diine joo xam ne daf la ne dekkal ak sa mbokki chrétien ci jàpp na la may nga lekk na ko may mu lekk li dagan ci sa ci lekkam may ne la nga tuddee chrétien doom moom dana la tuddee doom soo amee ngénte mu ñëw mu am dëj nga ne yàlla moomu waxoon la nga maslaak moom moo leen ne bu ko ñaanal bul dem ci dëj ban ban ban xar kanam nga jox l'islam ci kanami dëkkandooram ak noonam et ça c'est grave nit ñi bàyyiwuñ ci xel léegi nag soi-disant ustaas yooyu noonu ma ma ma répété li waxuma waa Tiwaawan mais ustaas yi wuyoo woo Tiwaawan dañu am organisation bu ñu bokk parce que dañu gëm ne yeneen këri diine yi dafa am lu ñu leen ëppale moo tax nga leen di gis ci télé yi ñuy pénétrer pour am doole pawaa Tiwaawan encore te li may wax luñu wara mëna tek mën la oustaz yoy kep ñoo ci di xex sen xarit yi ki nek malikie TV jàpp ma wax di xass personnage su nit ki ci télé bu wara wax mbirum mawdo ku ko rafetlu lu nga lu ñaaw mu am ci ñoomi neen sen bir lolu ben catégorie la li leen moy sen xarit yi ma was yag leena was waas yàgg leen a waas mat juum ci làmmeñ ñu profité ci loolu jàpp ba mu dëgër ndax noon bu la jekkoo du la yërëm muy benn kuréel ñenn ci ibaadu yi pas ñëpp li leen métti mooy wax ji dafa mel ni dama yëkkati chrétien wàccee jullit lii moo leen naqari te mënuñoo dem ci penc bi ne kii chrétien la bëgg a yëkkati ñu ne dafa saaga yàlla dafa saaga alxuraan pour bokk ci ci xeex te yenn ci ibaadu yi dafa am politicien bu ñu doon jàppale kooku kii na ñu am problème askan bu bëgg a delluwaat ci askan wi ma jox leen opportunité boobu ñetteel bi mooy ñi nga xam ne tey attention la ñu bëgg te nuñ koo am man ma am attention ba mu doy rajo bu ma bëgg a dem Sénégal dama fay dem du ma wax ñu xeeb ma télé bu ma bëgg dem dama fay dem fuuf saa yi loolu metti na leen ndax bëgg neen ko am parce que ci la ñuy defee seen business ñooñu tamit dugg ci coow waa Pastef yi nga xam ne musuma may Ousmane Sonko jàmm te ñu mere woon ma ñu profitoo ci lii politiquement moo leen motivé kuréel bii nag su bëree coow li day mel ni lu rëy moo tax ñu ngandal ko waaye bi ñuy ngandal coow li weesu woon neen bu yàggut léegi léegi léegi ku wax ne julli du dëgg asaka du dëgg jàng alxuraan du dëgg wu passé neen capitaine Dieng lu mu wax démb kuy jaamu xërëm kuy jaamu naka kuy jaamu lislaam ñoo ci télé bi amul buzz parce que capitaine Dieng amul buzz parce que Cheikh Ahmed dafa menacé seen intérêt waaye jullit bu màndu taragal yàlla sa moromu jullit def bàkkaar ni nga ko defee mu jéggalu yàlla réew jéggalu la yow jullit bi soo ko toppaatee rek yow am na beneen intérêt booy dawal waaye yàlla taxul war laa ne baal ma na yonent yàlla fi fi may daanale noonu yonent ku ko musa tooñ lu tooñ ba rëy rëy boo taxee na ko baal ma keroog nga bàyyi keroog la la baal soo ne ashhadu an laa ilaaha jàpp na la ni jàppee Ababacar ok euh, euh, euh, néewoo àll woo te ñoom it ci diine li ñuy waxtaanal ci télé yi ndax euh, représenté fa diine tey damaa dégg jàppoon ni ab cofeel cofeel ak xaritoo moom ngeen waroon a amee mais pas di noonu de xam nga lu tax am cofeel ak xaritoo man dama am business bu may dundal muy àndalaaburi suma intérêt la moom lay topp moo ñoom ñun bu boowoo war cee am teranga seen intérêt la ñoom lay topp waaye man ak ñoom bu ñu yàlla rek taxoon a jóg ñu bokk tool bi dañuy nekk xarit li mooy dëgg islam a ngi commencé am problème bi bi ñu amee ay youtubeur am compte youtube monétiser ko mm-hmm. moné moné la ñuy waxam nga monétiser affaire bi di wax ci lislaam ñi lay fay youtube di la fay keroog leen am problème moo tax bu Salam jàll wéyee Makhtar Sarr génn mokkal wéyu Salam bi di ko xas di ko yóbbu safara su bàyyi baa bu ñëwee mu ne bu ko fecc di sëgga jàppa si sa ndigga di ko rek la topp ustaas yooyu bàyyil xel bu baax li ma la wax actualité képp ndax dañoo am YouTube bu ñu war a dundal te loolu day joxe xaalis Cheikh Ahmed moom day créer benn bës coow li am mu waxtaanee waxum sëy ah. jàpp naa coow jeex na maag Jamra suñ coow mënta jeex ndax Jamra du organisation bu màndu xam nga lan moo tax man juum na ci ñom seen dégg-dégg ñu japp ma yóbbu ma kaso keroog biñ ma plainte dama contane pour man bala procureur bi di ak man te man ma gëna for juma fouf ni a gëna for juma ñu japp ma dóor ma menace mort Kaolack vidéo ma mané bala muy régler dossier waxi làmmiñ ci diine dina indi ñëlé doron ma ngir mu render justice justice waye ñu faxastal lolu lolo lolu tejj ma kasso ñetti sëñ Fall Ndiaga niñ ma tëjee leen ma tijjee ba tey kenn waxuma ne lii nga def kenn waxuma la lee nga def biñ ma tijjee ma dem ci maam Makhtar Gueye ma ne ko man contrôle judiciaire laa laa nekk te damaa nam mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma demal te du bul signé te dara du xew ba léegi Fall Ndiaga musuma signé juge baa ngi may dégg Zik FM laay waxee greffier baa ngi may dégg musuma dem signé ci laa dem Màkka dem ci Mauritanie ñaar yoon dem Maroc dem Amérique dem France ci contrôle judiciaire bi léegi may laajte na kan moy maam Makhtar Gueye même ma dané fo kan moy maam Makhtar Gueye ba mën tej Cheikh Ahmed ñetti weer kaso mu nekk contrôle judiciaire liberté provisoire ba paré demul signé ji te dara xew ma defaat problème mu né dama nekkon contrôle judiciaire war ko dekkalaat mom moy kan ci justice Sénégal et ça c'est grave hein. li lu garaaw la benn ONG benn maam Makhtar Gueye mën a tëj ku ko neex su ko tëjee su demee ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko su ko kooku nekkee contrôle judiciaire mu ne ko bul signé yi kooku di génn justice di ko gis ndax man su ma tukki day siw bi ma demee Màkka xam ne ne dem naa bi ma demee Amérique xam ne ne dem naa juge bi gis ma de la justice gis ma ñu xam ne maa ngi contrôle judiciaire te kenn waxuma dara lan moo may doole Mame Makhtar Gueye bi ma tëjee ma ma dem Amérique indil ko ah? père père dafa am question. waaw bu mu bëgg a père Mangone dafa am question bu mu la bëgg laaj. na ma ko laaj ma tontu ko père. waaw asalaamaaleykum Cheikh Ahmed. waaleykum salaam taalibi sëñ Modou ah, léegi laa la dégg ci whatsapp bi maa ngi la bëgg a tontu léegi léegi yaa ngi may message père. kay sëtu André Boury Dado Cissé. maa ngi nii de liw bi liw bu sedd bi la. waaw waaw kii Cheikh Anta man de li ma bëggoon a laaj mooy lenn. Mhm. ndax xam nga waxtaan nañu ba sax euh, demoon na ba man yaakaaroon naa ne lépp lépp sedd na moo tax su ma déggee nga waxtaan ak euh, Fall Ndiaga ba ne ko sama diggante. ak jamra du mën a sedd du mën a neex ma yaakaar ne demoon nga ba yëkkati ba paasu màkk di ko jox ki nga xam ne moom mooy maam Maxtar dem ci kàdda màkk. waaw xam nga Père Mangone. Faal. man li ma def laa war a def ndax doomi buur laa doomi garmi laa tëj nga ma kaso. ma woona ci kaso gi jéggalu wante yow comme jullit ak moromam ma génn kaso seet si la am sa numéro ñuy waxtaan bi may jógee Amérique indi lu ma la dara yow sa sëri ja la maxtaar gi maxtaar maxtaar gay parfum yi gën a cher laa jënd indiwaaleel ko da ko ragal wala la kaso ba wala lan la. lim ma dugal kaso li ma jàngee ci kaso gi teraanga googu laa ko mënta fàtte ndax dama am lu ma jàngee ci kaso te mus lim ma defal nga ma defalut kon kay bul toll sa bopp ak moom même ma continuer li wax man man sama bopp man dama gëm sama bopp de sama bopp day na gëm sa bopp wóorul xam sa bopp wóor yàlla rek la ñuy gëm génnal ci yi nga nekk père waaw waaye man li nga toog bugaan ngay soo gisee mënta dem gëm sa bopp bi mu wootee tax kenn warta gëm boppam nit day xam boppam te gëm yàlla ba kan ma wootee gëm sa bopp bugaan ngay moo tax parten bi du dem pere naa sa du ko mën mangi Gawour. mangi a kaay lu rek lay top Bougan rek mo lay top vive Bugan 2024 vive Bougane 2024 donc père même ma dalé pour ko tamal ci dëkk bi teel na wax leen ñu bayé ba suba man dina jéggalu yalla jéggalu askan ma ñëw pour man ma Makhtar daf ma wara a ma tok comme mom mëna woté presse bi ñu waxtaan ma jéggalu Sénégal moom mu jéggalu Sénégal su paree nag mu ne Cheikh Ahmed njumte bi mu def mënatuñoo ànd ak moom ñu tàqale ko ci jàmm sëy tas na te jàmmu am. waaw waaye nit ku bokk ci yow jënd cinquante carte membre nga dàq ko ci benn njumte mu def te yëgul ko te wax ngeen téléphone mal honnêteté dafa am. te kóllëre leen koy sàmm tëj nga nit ki kaso mu génn jox la ñetti biir. di am ay xalaatam di def yu baax ci yow kooku su demee ba juum bul ma jàppale ci njuumte bi man doomi daara laa li ma wax kenn mënu koo rafetal noo ko layee du rafet waaye lum rëy rëy rëy boo ko jéggaloo rek jeex na munoon na ànd man bam pare mu wan ma ne nag sa njuumte yii kat mënatuñoo ànd ak yow ci jàmm sëy tas na jàmmu am su boobaa jàmmu am mais ni ko defee du jëfi kilifa du jëfi ku màndu du jëfi ku honnête ndax am na pression bu nekk si ginnaaw ñooñu la bëgg a def ma man nagu sarax moo tax suma bëtam moo dul tegu suma jëmm ba may tëjati kaso moom. waaw mais am na demee su Amath meree oh xam ne yow loolu nga ko ji maanaam ci ñax moom nga xam ne bu da koy aaye. loo teg sa bët la xam nga Sénégal kenn mënut a fenal kenn maamam bi Cheikh Sida Hadji Malick radiyallahu anhu buggee woon Zawiya Dakar fu mu bëgg du ko mën a am maami Makhtar Gueye dégg wax ji taalibe bu dëggu woon nit soo ko bañee waxal ko dëgg mu xaaj këram ci dëgg jox Maodo Zawiya génn wàlli kër ga nag yàmbaa leen fay tux ba tey nii ñu ngi fay jaay yàmbaa police du fa dugg. ci kasso gi len mako waxe ma genn demal fa suma bop man duma wax luma ma xamut rus naa loolu man rus naa loolu. ay way loolu la ko wax ci kasso bi nan la ko waxe dama nek ci kasso bi ñu genn parce que ci biir kasso bi 24 heures yu ne ñaari waxtu len lay may ben way japp suma loxo na ma mam Makhtar gey yow la yeb xam nga lan mo indi Jamra mané ko dédé mu ne ma yamba bi ñuy tuk seen kër ci la Latif taxawalon Jamra motax ñom xexu xeexuñu xara xara xara deglu deglu per deglu per mota jamra xeexul sangara bi gëna bon yamba xeexul cagatu way yamba la xeex ndax mo leen déranger man bima fa jógee ma dem ba ci kër ga ba gisal suma bop billahi wallahi tallahi ma fa dem ma ko gis ma gis ni ñi dilé yamba bi ci biir kër ga non père demalal sa bop bu la waxi kenn doy yow nga ne sa xam-xam ci dox nga ko amé demal nga nga top lolu

ndax wax nga ne def nga erreur tuub nga. waaye dañoo wax ne boo tuubee ba pare boo tuubee ba pare fa tibaaxul bi ixsaan boo tuubee ba pare nañ ci teg lu rafet man li ma mënta comprendre mooy nga wax erreur ba pare tuub ba pare duggaat ci sa biir oto dagg ay saaga ci ay kilifa doon xam nañu waxawuñ loolu. Mhm. du loo xam ne kenn mën na laa layal ku la bëggoon a layal it su yeggee ci loolu dana gàtt beneen bi mooy nadir ibnu xaaris li nga xam ne waxoon na wax ji moom la nadir waxoon in haada ila asaatiru asaatirul awali ne lii mooy naru maame njëkk yi rek lan la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon wayaka innahu kalaamu rabbul alamin lan la ca teg allahuma in kaana هذا هو من الرق من من عندك ومثل علينا إجارة من السماء ولي لي وخني بقل يا أخواتي تورج من الآخر وكم الهون يو بينا خمنا لدينا قم القرآن قم دين نكتي دين دود الشيء أحمد سيسي سنسان قريبه نقل بجيكو وقت القرآن نيالا دون زوزي خوما لوكو وخي فلاني واو léegi loolu noonu impact xale yi ngay jàngal xale yi koy déglu ak ni média mel lan ban impact lay def ci ñoom beneen ba nag mooy Makhtar Gueye Jamra ak yow ak moom loolu seen seen xeex personnel la. problème bi ñoom. waaye dama jàng dañoo jàng ci Laxdari ne boo tuub ashurutu tawbati ala ma faata wa niyatu an laa ila zanbin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka almaxshiyata bi saatiha in kaana mutalabbisan biha kon nag yow da nga dem bay tuub teg ca lu rafet te bu dee saar yi daal ñaawlu saar yi moom ñaawlu naa ko léegi nag dama lay laaj loolu si rafet non dégg naa ñett yëpp li bëgg mu leer ci yow mooy waaw tuub bi mag suma borom la te teg naa ci lu rafet waaye am maam Maxtaar Géey musuma koo tuubal te duma ko tuubal ba bufta bi wal te saaga yi ma saaga Maxtaar Géey maa ngi jégalu ñu ko dégg mais réccuwuma ko ci moom saagal bu set ma message ko saaga man waaye nag dootuma ko def ci penc mais bët bu set tey laa ko mujjee saaga bi ma jullee timis ba pare daggal naa ko saaga ba suma xol bi sedd loolu rëccu ma ko de dama bëgg loolu leer waaw même ma daane sëñ bi maa ngi la doon déglu même ma daane même ma même ma dajale sa question yi boobu rëccuwuma ko tey rëccuwuma ko suba ni ma ko saagaa démb laa ko saagaa tey te suba bu ma yeewoo ci jàmm naa ko saaga ndax guerre personnelle la ñun ñaar loolu yooni kenn nekku ci ndax bi muy taxaw ci penc bi di ma góor jigéen yéen a koy dégg bi may jiiñ awma kilifa yéen a ngi koy dégg bi may jiiñ yeneen ak yeneen yéen a koy dégg comme moom ci penc ma la ma tuumaale ma saaga ko ci penc bi su noppee ci man nag ma noppi ci moom rëccu ma saaga Makhtar Gueye mais nag am naa kersa ci ñi nga xam ne bëgg neen ma yàgg maa seetaan mu su dégg saaga ci man ñooñu kersa naa leen moo tax saaga ci maag moom la Facebook am dama koy saaga bu damay toog rek namm ko rek dem saaga ñëwaat toog. lolu benn la kon pour mo won la har fal jega Ndiaga memutul même tuuti même pour ma leeralal la ne suma tuub gi ci mag suma borom la maa ngi cay teg lu rafet mag suma borom mais Mame Makhtar dama ko musta tuubal ba tay tek lu rafet ndax kula bañ nga bañ ko kula xex nga xex benen ba ca dess moy wa même ma tontu gi ma ma bu ci dess wax gi nga wax ne. Eh? wax gi nga wax ne ban impact lay am ci xalé motax